bu ñu ñëwee Gàmbi fekk fi ki nga xamante ni mooy roi des arènes bi di xoyantaan kenn du ko laaj ndax euh, jafe naa gis waaye gis nga rek euh, wasaare làmb moom fépp fu ñu dem lu yëpp lu yàlla suñu borom dogal dinañ ko def xoy maa lay nuyu bu baax di la siyaar. alhamdulilah euh, rabbi alamina alhamdulilah rabbi alamina naa bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm sunu ñaari waajur di gërëm waa ak làmb yëpp di ñaanal sama sëriñ Cheikh Mamadou Lamine Jim Ndiaye yal na yàlla xare ko àjjana ak mboolem jullit. Euh, maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. noo gisee làmb Gambie actuellement dafa mel ni làmb dafa jóge Sénégal tuxu seen Gambie te bu njëkk làmb daa jóge woon Gambie dem Sénégal. waaw sant rek sant rek ndax euh, euh, àdduna moom noonu rek lay demee dañuy wax ko aaye wal sa moome jamono bi ñu tol nii ñun ñoo aaye ñu wal suñ moome li tax nag làmb di taxaw ci fenn yi di dem ci fenn yi yal na ko fi yàlla jële bu ko kenn déggati muy feebar boobu nga xam ne mu ngi fi wàcc. ci réew mi yëpp adduna bi yëpp sonal nit ñu huit lakkal ñu huit ñun mbëri sax la ñëwal boog pour mu leer parce que ñun amoon nañu ay contrat yàgg amoon nañu ay combat taxaw yàgg waaye ba léegi mbër mbëri mag yi mënuñu bëree ma si bi bu ubbeeg léegi mbëri ndaw yi rek ngay dégg ñuy bëree nii waaye mbëri mag yi sax mënaguñu bëree ndax promoteur yi óolu wuñ pour décorer sa combat yi mag mu doon loo xamante ni fi mu toll nii ñu bëree bëri euh, wax nañ ni xoyantaan jël na ñaari avance ñaari avance yooyu mun nga ñu ko leeral. waaw lu wér la lu la te bëggoon naa sax defoon bu yàgg waaye feebar bi rek la corona bi moo ñu sonnal euh, dëkk dëkk naa ñaari avance jël naa avance boobu gàtt bii jamaïcain mi jël naa avance jël avance promoteur bii jibee promotion bëgg a régler yëpp nag bu dajek dogal suñu borom. nga war a bëreeg Baye Mandione ñëw Sénégal bi mu ñëwee Gambie wee problème wee la amoon mu ñëw Sénégal mbaa yow doo fa am wee yow tamit. li ma wax mooy man su may ñëw Sénégal damay indaale ciseau indi coupe ongle indi lancet lépp laa indi su may ñëwee damay tàllal luñ bëgg rek ñu dagg parce que man yàlla amoon ba man du ma yor sax we ndax évidemment yi bëree mbër buy mbër naan ko daggal say du mbër buy bëree mbër buy bëree am we manul nekk mbër buy bëree waroo am we manul nekk ba ñaan a daggal we déedéet man du ma du gisee benn we ini nag heure boo ma fëggee doo ma gisee we ndax dama nekk ma liggéey la te weer na la leer leer yàlla na même bu ma entraîné sax man naa ci gaañu wala ma gaañ ci loolu moo tax du ma ko foyee man pare naa pour ñëw Sénégal daan Baye Mandione ci ay minutes yu néew parce que du Baye Mandione moo ma tax a jóg pour may ñëw Sénégal di bëre si. kan moo la tax a am na leneen lu may xool lu mooy loolu. bu ñu paree ñu wax. Baye mel ni nee na moom moom Sénégal. suñu paree ci Baye Mandione dinañ wax fi ñu jëm. man la jëm. ci kan man. wuli da ngaa bëgg a jël xoyantaan. fii laa ko bëgg Gabi waa man dafa tàgg de. da nga ko bëgg a rey wala la. non moom champion la nan reyante rek. yow koo mës wóolu rek léegi dafa koy rey kii waxoo dafa koy rey rek. ki neexu rey nag nan reyante. ah. ki mooy roi des nag. roi des la nag vraiment. non roi des la. Uh-huh. non roi des arènes Gambie. kii Gambie dañ ko sax kii maanaam Gambie dañ ko war a gën a jàppale parce que roi des arènes yombul quoi man nag su ma ñëwee Gambie moom laay bëree roi bi. mais xoy euh, actuellement làmb fi mu toll. Euh, gars yi ñu ngi naan xoyantaan war na di mën di bëree Sénégal di bëree Gambie mais li ngay bëree Gambie dafa mel ni moo ëpp li ngay bëree Sénégal est-ce jotul tey boo jugee ci Baye Mandione promoteur u Sénégal yi di la tëggal ngay bëree même boo amul combat Gambie ngay bëree ngay bëree si Sénégal. loolu dafa loolu dafa pare parce que boo seetee dal nañ si bunt boobu ba pare. ndax su ma demee jël Baye Mandione am combat fi jëli Baye Baye Mandione Sénégal kon xam nga ne départ Sénégal ndax taal bu ñu doon taal la ba taalee fii doo ko ak moom parce que bu ñu téewoon Baye Mandione daan ko fii fii la ñuy laajee mbër bi ñu war a bëre Sénégal waaye yàlla dogal si combat bi li mu dogal mu doon victoire boo xam ne bëggeewuma ko def defuma ko muy dara dama ci am naqar ndax combat bu ma am fu ma fu ma jëmee woon mu xañ ma ndax ma ñàkk combat bi. du ndam feetewu ma ko victoire bi biñ ma joxe victoire dama am naqar bi nañuy supporter yuuxu mu ngi mel dama am dëj lan la ma yàlla baal si baat bi li ma séentoon ci combat bi ak li ma bëggoon ci combat moom laa amut moo tax suñ ñun ñëwee ne xoyantaan ba amuñ yoon wee moo yàq seen combat soo ma ko laajee ñaari yoon ñett rek ma énervé damay mer ndax dama am naqar li ma doon bëgg mooy bëreeg bàyyi ma joon wane sama bopp daan bàyyi ma joon su ma mën xam nga àdduna yëpp ñoo doon bàyyi xel làmb joon su ma daanoon bàyyi joon damay taxaw wax am na ñu ma xam Sénégal am na ñu ma xamul combat bi na ci man lu bari def naa ci combat lu lu bëri lambu Gambia def na ci man waaye def naa ci lu bëri bis boobu ñu ñàkk noonu dafa tardel affaire bi waaye ni kon xam nga ñan laa war a bëri Sénégal. boo jigee yow fi mu toll dafa mel ni dangay ngay mais xam naa ni sa xel mu ngi ci champion yi nga xamante ni ñu ngi senegal pour nga laale ak ñoom mais est-ce jot na nga laale ñoom est-ce que toll nga foofu. waaw am nga man nga ñëw fii rek xëy daan nii xëy na le waaye nit mooy natt boppam xam mooy kan nit boo tëddee man mu xëyee di dox ba jant bi so su ma tëddee damay xool man li ma xëyee baax na wala baaxul lu ci am defoo ma deferaat ko walaay bët di set su ma tooñee nit bët setee ma dem baalu ko aax bët bu ma bu set su ma xëyee di dox ba ngaa ngoon di jot bu ma sangoo ba war a tëdd dinaa natt suma bopp xool li ma xëyee ndax baax na wala déet dundu doomu aadama laa lay wax de. moo tax man pare woon naa pour bëree jeeg ñeneen ñu mooy Baye Mandione mi ma doon bëree waaye nag yàlla mooy dogal te génn si xel mi ba léegi dañuy ñëw dakaar rek pare ak Baye Mandione continuer mission bi. Baye Mandione ak Double Tyson moo gën a yomb. non jàpp ma ne kenn yomb na ndax làmb li ma jàpp daal mooy jël naa seen avance te maa ñaan yàlla yàlla may mu ndam ndax mbër bu yomb bu ne dama gis na da ngay bàyyi bëree lu yomb day bàyyi bëree loolu laa jàpp yomb amul fenn. parce que nit duñ la fay fay kii ngeen war a jàkkaarle dóorante ay kurfe ñu ne kii moo gën a yomb tànn ku gën a yomb làmb amul yomb te olof mu ne làmb amul maas dabante la. Hmm. fi mu ñoom ñaar kan nga ci gën a njëkk a bëgg a laaleel Baye Mandione wala Double Tyson. Double Tyson moom la ñuy njëkk a bëreet fii da ko dem bëree ji Sénégal bu soobe yàlla. Hmm. lay jaajëfal bu baax a baax a baax. jaajëfal di la jaar di la ñaaral jàmm di la wax ne wisaare làmb yàlla làmb wisaaroo te ngeen gis seen bopp yen ñu koy wisaare ñu dégg leen ci yeneen yu gën yi yeneen yu gën a kowe ci barke alxuraan karim yàlla mën na ko yàlla na ko def bëggee naa la bu baax jërëjëf.